assalamualaikum mbokk internet bu Guédiawaye info TV tay ñi ngi fi nga xamantene moy medina Médina Gounass fi lu soxal final bi nga xamantene amon na dem ci digënté waldan ak Ceddo li ñëpp daal di gis loolu nga xamantene mom final bu mujjé nako mujjé violence boo xamante ne dafa jéggi dayo président Ceddo di andaw ñu daal dem ay bm yu bari xam saccagé nañ ko ñetti kërëm ak ay voiture am xamantene aussi dañ ko saccagé tay lool mo faral suñu téwa ñu daal ñëw daal di xam lan mo waral problème de réellement ci kanam tu den jël rakam muy Ndiasse Ndiaye ah, pour mën a xam lan ngi tuddu Ndiasse Ndiaye ma ngi dëkk fi ni waaw xam nga man àndoo sama mag la man moom ñoo bokk ndey ak baay xam nga rek affaire bi moom doy na waar trop parce que ñun wàll daan lañ dëkk mais nag ñun ay supporter ceddo lañ quoi ceddo moom xam nga bu ñuy wax ceddo àndoo moo tax ñu naan ceddo ñun moom li ñuy wax booy rek ñun direct ceddo moo nekk suñu yaram te xam nga ñun ba ba ñuy dee mun ñu bàyyi ceddo suñuy sët sax ceddo lañ faral xam nga suñuy sët sax ceddo lañuy faral quoi xam nga loolu loolu la quoi mais xam nga rek gars yi booy ay booy yoo xam ne tekkiwuñ dara dem stade gaye ñu sàq yi ñëw yàq fii suñu ay kër yàq fii suñu ay oto ay affaire yoo xam ne te foo rek la quoi te booy koy def chaque jour seen papa yàlla di may dépense seen yaay yàlla di may dépense booy koy def ñëpp xam nga yàlla baax na quoi yooyu moom garaawul quoi anyway quoi ça va waaw mais li xew démb ñëpp gis nañ ko final fi mujjee violence bu bu atroce mën la mujjee ba mën nañ sax daal jéggi daw est-ce que mën wax yow euh, revenir ko dundee non événement bi moom c'était prévisible que ñoom mais am na si ay tur yoo xam ne avant match bi dañ doon wax la ñoom cité bi cité àndoo la waaw wax dëgg yàlla cité àndoo la quoi parce que moom xam nga suñu borom daf ko dimbali papaam liggéeyal ko yaayam liggéeyal ko mu liggéeyal boppam xam nga mën fi am ay kër mën fi am ay oto ñun ay rakam ñun ñëpp ku nekk mu jox la ay kër yu rafet jox la ay oto yu rafet teg ñu si ay conditions yu bien léegi loolu gars yi boobu moo nekk si biir quoi léegi ñoom ñeeñ àndoo quoi àndoo loolu yàqu ko ñoom xamuñu quoi loolu yàqu ko quoi parce que xam nga moom yaayam daf ko gërëm papaam gërëm ko xam nga boo ko moom day bàyyi gërëm ko xam nga léegi nag xam nga rek gars yi ñoom seen violence muy gars yi luyee foofu ñoom sànni nañ fa xeer léegi yéen kër yi nga xam ne gars dëkk fa fa la jëm sànni xeer donc c'était prémédité quoi mais nag xam nga yëpp dañ ko doon bàyyi mu jàll quoi mais bii moom pare sax pour bàyyi ko mu jàll quoi nañ ko teg ci yoon xam nga après topp yoon lu ñu yoon may rek waaw est-ce que tamit amul ay kàddu yoo xamante ni mën naa ni moo gën a ñagasal mbir mi sax parce que avant ngeen di jouer final mën naa ni avant demi final bi contre Gounass sax doon ñu dégg ay wax ñu naan Grand Andaw nee na bi coupe jàmm la jarul sonn est-ce loolu gënul yokku tension ci bis bi ngeen jógee nii non Grand Andaw ni ñu waxam xam na ne Andaw il n'est pas violent équipe bii di Wally Dann biñ koy taxawal dañoo ñëw moom may leen xaalis chaque match Wally Dann may naa tudd seen tur ñun façon finale bu nekk perte nañ ko stade bi tëgg suñu Azuko ñibbi xam nga façon finale boo xalaat gagné nañ ko ñu tëgg suñu Azuko ñibbi mais ñoom mënuñu am ngor nga mën leen man tamit bi ñu def stade bi ma wax booy mën leen waaji boo ko mënee day tas marché bi parce que du am ngor du ko mën a dékku mais nag kuy kuy dem uti da dem pour gagné ñun bi ñu ñëw stade démb ñëw ñoon pour wàll daan dañ dañoo ñëw pour gagné leen boo ñëwee nag stade da ngay man maa ñëw stade yëkkat booy dóor leen Azuko yi dañuy gagné booy mais ñoom xam nga ñoom dañoo daw dem dañoo saaki comme ni ko gars yi waxee dañoo saaki te nag ñoom chaque année ñu ñoom la quoi ñun loolu lañ séq mbooloo bu takku la woon waaw mais parce mbooloo bu takku la mais am na ay nit ñoo xam ne balaa marché bi dañu waxoon ñu am ay enregistrement seen tour quoi enregistrement yooyu mooy police centrale ñoom dañ dañ waxoon ñoom ne ñoom match bu jeexee dañuy ñëw taal wala ñu sànni quoi gars yi am si ay enregistrement am si kenn koo xam ne sama sànc la nekk mooy sama avance sànc fi nekk nii te si ñu nekkoon ñu sànni ci la bokk am na si boo yoo xam ne waa koñ bi localisé nañ leen si ñu doon sànni xeer ci lañ bokk donc xam nga léegi gars ñu ciy jàpp ñu xam rek bu jàppee ñu ñu xam ñu leen jàppee après ñooñu fay parce que tamit il faut mu am ñoo xam ne ñoom ñoom mu am ñoo xam ne moom ñoom fay quoi incha allah waaw ah, tey boo ñu defal bilan ci li nga xamante ne yàqal nañ ko ci wàllu bien parce que coow li bëri na mais yow yaay le mieux placé pour mun ñu wax lan moo ci nekk waaw fii yàq nañ fi presque ñetti kër yàq nañ fi ay oto cinq oto ak ñetti kër ay saccage yoo xam ne amul fenn teguñu ko fenn ci yoon quoi teguñu ko dara ci yoon parce que xam nga kër gii nii rek borom pharmacie bi dañu ñëw jël téléphone am yàq ñun yàqule nañ quoi parce que ñun li ñu yàqule dafa visible mais ñeen ñi ñu ngi jël seen ay téléphone jël seen ay xaalis kenn xamul loolu la la toll te ay booy yu dëkk si ko ñoo ko doon def te booy yooyu yëpp ku nekk jàpp nañ la si àndoo ñëw ñaan intervention gars yi bàyyi la booy yëpp booy doon sànni ku nekk jàpp nañ la àndoo dem ñaan intervention fay xaalisam gars bàyyi la mais doo comprendre quoi mais nag yàlla baax na suñu borom dina àtte incha allah ni jotul grand bi daal di xaw a a discret trop ci mouvement navétane ren benn copain bu ñu naan Demba Ndiaye président Ceddo mais Ando moom doomu Ceddo la ñun ay doomu Ceddo lañ ñun dafa am sax wooy bu ñu woyal ci koñ boobu bu ñu duggee ci koñ boobu parce que suñu moo ko liggéey foofu si koñ boobu trois Pikine sama grand bi ñëw liggéey ko man ma ñëw prémédité ko ñun ñëw ñoo ko liggéey man la dama ñibbisi uniquement pour nawetaan man je vis même pas ici mais dama ñibbisi uniquement toog pour nawetaan jël ko bu Ceddo parce na loo xam ku bu parce que xam nga booy buñ ko gisee buñ gisee booy buñ ko gisee stade la ñu ressuscité wu ñun daaw jé nañ fii ak doole quart de finale mu ñëw ne ko 2 0 5 minutes de la fin mu égalisé 2 2 est ce que sànni nañ xeer mu gagné séeréer dañoo dem ñibbi sànni nañu xeer dañoo dem ñibbi parce que football loolu da ngay gagné tey ñu lay gagné mais waawal daal ñoo fair playul démb final bi yow yow ñi ñëpp ñoo ci stade bi gis nañ dafa am que ça muy muy parrain bi muy président zone bi muy waa lépp quoi dem stade bi gis nañ dafa am mais loolu garaawul quoi ñun yooyu jaaxal ñun yàgg nañ ci nawetaan ñun dañ yàgg yóbbu équipe yàgg ci nawetaan li la wax rek ay Ligue des champions ay coupe d'Afrique bokkul ak ay nawetaan yi nii quoi xam xam nañ pression xam nañ tension quoi mais nag yàlla baax na quoi grand moom moom pareegul xam sax peut-être des fois a disant ne ko moom pareegul quoi parce que moom xam nga dootul am moom li gars yi wax naan ceedo ceedo àndoo tax ñu naan ceedo moom rek mooy ceedo xam nga koñ bi bu ñu doon sax bu ko bu ñëwee si waaw su ma déggee say carte tamit dafa mel ni mbir mi daal politique dafa làkku ci ginnaaw waaw non mais mënu si ñàkk mënu si ñàkk quoi parce que xam rek ñoom moom xam nga démb nañ planifié woon seen ay affaire quoi pour dem ne xam jëli seen coupe indi ko quoi mais nag yàlla nangul quoi yàlla nangul quoi ñun ay Baye Fall lañ quoi xam nga ñun moom ay Baye Fall lañ quoi xam nga te xam rek ñun ki àndal kenn du ànd moom di tiit wala ngay ànd yooyu yooyu garaawul yàlla baax na. waaw kon Ndiass ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo le mot de la fin. waaw man nag xam nga damay si profité remercier waa Ceddo yëpp quoi si kaw ba ci suuf quoi xam nga damay remercier waa koñ bi yëpp waa koñ bi yëpp xam nga di remercier li ma koy waxee rek àndaw quoi moom du mag si man moom sam papa la. parce que lépp lu nekk si man moom moo ko def si man quoi népp nu ma mel moom moo ko def si man quoi di remercier waa yëpp yëpp yëpp xam nga cat coono bi ñoom su ma leen gisee rek coono bi dootul métti quoi su ma leen gisee rek coono bi dootul métti quoi te ma leen di wax man lu ma def foofu deful ma ko waa Thiel man àndaw laa def sax man àndaw mooy sam moom ma jël jox ma ko ne moom mooy sa papa man sam papa ma laaj sax compte moom àndaw la la laaj compte quoi donc moom xam moom lu mu nekk man dama siy nekk ba dee si quoi xam nga moom lu mu nekk dama incha allah billaahi wallaahi barke mam mam ma sam mun saafal ma yaakaar soo su ma waxaatee indil jëlal sa saak nga yóbbu équipe ma jëlal sama saak ñëw yóbbu équipe bi barke sëñ Touba billaahi wallaahi xam nga moom moom moom lu mu bëgg si man dafay am si man quoi parce que moom xam moom li mu def si man du ay xam nga nekkul sax ñu mën toog di wax quoi parce que moom xam rek ndaw la quoi te yombul nag quoi mais nag yàlla baax na yàlla baax na am di mbeng di mu am lu mu bëgg a sànni rek donc ci xew-xew bi donc gannaaw ñu lay nuyu baal nga présenté waaw petit frère maa ngi leen di fay den sant Ah, di am luma nakati torop ci affaire bi parce que Dakar la xey suba ñu woo ma wax mako ma bàyyi lim mu doon def yeb ñew quoi man ma doon góolu Ceddo en 89 10 11 12 walidan bi gagné na len final yalla def final bi tam moy deuxième final bi après ñun li am ci xew-xew yi tey nawetan dara jaru fi dara quoi foo rek la mais liñ ci bëgg duggal légui vraiment amatul ben sens di massaw andaw di massaw wa Touba Pikine wa Ceddo ñep képp kuy supporter Ceddo ma lay massaw di ko dal ñi ñu ngi problème bi daal di am donc euh, supporter wal daal di ñew ci koñ bi daal di am ay yak yak yoo am té def nañ ko ci ay bien wu andaw lool da nga ko dundé waaw mu metti ma trop ah daf ma metti parce que andaw bon ñun ñoko xam quoi parce que man bi may fubal nawetaan mom xalé la comme ñi taxaw ni la toll di top di langamu sama kaw di japp sama sac ko kon do la xam bi may may football may do mom moom do la xam ca la mom la juddoo fa la màggee tu as compris donc tuxu fi wala mu am fi keur taxul mu ci do dem fenen affaire affaire deret la waaw Walidane ñoo war a xamee loolu parce que ñun Walidane Ceddo fu ne final nañu 89 mais dañoo pare man ay Abou Kous ay gars yu bari ay Filo ay comment dirais-je comment dirais-je ay Foulignan ñun ñoo ànd ñibbi si te ñoo doon football ndoo ci biir terrain bi boobu benn problème amul jàmm rek a am mais léegi li nawetaan lii lii man je ne comprends plus quoi nawetaan li ci am léegi bien boo ñu arrêté ko sax boo mieux ministre bi arrêté ko. est-ce est nga yaakaar ni fi mu toll nii grand bi jotul mu xaw a retiré wu ci mbiru nawetaan yi parce que turam am na fu egg te mën nañ ni kilifa la aussi ci gox bi. waaw waaw dëgg la kilifa la parce kilifa tam du tuuti. waaw loolu tamit ñun danañ ci waxtaan en famille ay magam ay nijaayam ay yaayam ay maanaam ñi nga xam daf leen déggal ah dinañ ci waxtaan ak moom jéem a xool parce que tamit bëgg moom bëgg la nag waaw am na loo xam ci deret la ne mais ci waxtaan ak moom incha la nga tàggatoo le la fin. waaw jërëjëf jërëjëf ñuy félicité waat waa Ceddo parce que nag